Balla Gaye numéro 2 mi ngi noonu diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga taxaw nanu Eumeu Sène moo nu woon ginnaaw Balla Gaye moo nu woon kanam arbitre bi sifflé ñaan na Cheikh Thierno dañuy bëree bàyyi am waaw Balla dem na tuuti dañuy bëree ñoom ñaar dañuy bëree ñoom ñaar arbitre bi arbitre bi sifflé ñoom sifflé génn ah Thierno Sow Dieng Ama taxaw na jàkkaarloo noonu ñoom ñaar. dañuy bëree. ah dañuy bëree Ama euh, mais Moustapha wuyu ma ca làmb bu ñàkk. ñu ngi leew too. Eumeu Sène tàkku ndeyjoor Balla Gaye ni ma ko doon tàkku càmmoñ. ñu ngi leew too. waaw ñu ngi leew waatoo ñoom ñaar. léeg-léeg xaw naa sorante nag ñu ne leew too. Ah, xaw naa sorante dañuy mbapat. mais Cheikh yi sa morom. bàyyi xel la ku na xel sa morom. revanche la woon. dañuy mbapat. noonu dem léegi naa la daanaat ma daanaat dama lay daan. sept heures dix minutes sept heures dix minutes la ñu commencé combat bi. ñu ngi léew too ñoom. ñu ngi léew waatoo ñoom ñaar dara oh. ma méb na waaw kon wan na ko ni day ñëw 58 secondes. wan ko ni day ñëw une minute Balla Gaye leen woon une minute mu dal ci kawam. ko ni day ñëw. une minute passé na. ñu ngi taxaw ëmma ñu ngi koy déglu. koy wan ni damay ñëw. koy déglu ñu dañuy jàppante dañuy songo. koy topp ñoom ñaar góor ñoom noonu ñoom ñaar. ko teg. Balla Gaye bañ loolu. dafa doon mbax ñëwatul ci ligi góor dafa doon mbax. dañoo bokk ay bëre. nee na ko dama lay botti. waaw waaw ñu ngi bëre ñoom ñaar Balla mépp na léegi waaye demul damaa ngi ni teg ñoom ñaar yi bëre dama mépp na waaye Balla dóor na daje nañu xeex nañu ñoom ñaar dóor na ko ah ah ama dóor na ko ama dóor na ko waaw dal na ko mais dal na coup bi dal na coup Balla Gaye dal na daje nañu ñoom ñaar daje ñoom ñaar oh ama seen war na ko nopp ama seen war na ko war na ko war na ko nopp ko moo ko dóor moo ko dóor moo ko dóor moo ngi dóor Balla maa ngi dóor Balla maa ngi dóor Balla maa ngi dóor Balla ñaari kadafi ah, ah ça y est ama dañ la sen daan na Balla Gaye ama sen ah, ah, daan na Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye kadafi ah ah wala dóor dóor ko ama sen daan na Balla Gaye numéro 2 ñaari yoon dóor na ko daan na ko ah si il était plus posé dóor na ko daan na ko respect rek ah way ni da nga respecté mbër respecté wu ko ah way respecté wu ko